Radio Futur media mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di rafetlu ni ngeen àndee ak ñun fas yéene ànd eh, ci seen émission xalaas mu suñu journal fait divers gërëm bu baax a baax nag mboolem ñi nekkoon ci programme bi doore ko ak RFM matin naka noonu it El gaming Assane mi ngeen àndaloon sànq eh, ci eh, penco ci RFM Aliou Ba fare ci machine bi ñu koy sant bu baax a baax gërëm it soxna Yacine Pouy mi nga xam ne moo ci digital bi. gërëm leen ci ni ngeen di ak RFM gërëm inspecteur Ndoye Bane moom it euh, inspecteur maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay ziar sama waa ji di ziar passe partout waa réew yëpp di leen ñaanal jàmm waaw yal yàlla da def jàmm ci réew mi def ko ci xel yi xol yeeg fu ne. amin sénégalais yi ne bitim réew yal na leen yàlla may jàmm. jërëjëf may leen i koppar. amin waay amin passe partout waaw passe maa ngi lay nuyu. jaajëf Ndiaye maa ngi lay ziar di ziar Ndoye di auditeurs yeeg internet yëpp. Mm-hmm. leen nuyu di leen ñaanal jàmm nuyu partenaires yi ñuy gunge ci Optique Vision Plus Sénégal lunettes partout et pour tous loolu la ñuy woote di ci dox saa su nekk di liggéey lu am solo nag ci social lunette yu cher yi ñoom ñu koy def ci ni mu gënee ba pare di ko yombalal askan wi ngir ñëpp mën cee jot ay vision de près wala vision de loin euh, à 15 000 francs CFA ay progressif yu anti reflet 35 000 ay percées originales ci Optique Vision Plus Sénégal ay lunettes photo gré anti reflet monture de marque. Euh, loolee lépp ngeen ko am mën ko am kon ci Optique Vision Plus Sénégal ci rentrée scolaire bi ñuy taxaw parents d'élèves yi ak xale yi nga xamante ne ji dañu am ordonnance lunette buñ fa ñëwee sur ordonnance dañ leen di wàññil prix bi bu baax baax ci promo la nekk Optique Vision Plus Sénégal Dakar 33 821 54 57 Optique Vision Plus Sénégal Sali. 33 876 61 03 Optique Vision Plus Sénégal Kër 33 864 79 84 voilà Optique Vision Plus Sénégal Binek Touba en face Kerman Murtala 77 090 97 27 Benen partenaire comptoir commercial de plomberie du Sénégal Nyomit spécialiste ci sanitaire Fiti ci comptoir commercial de plomberie du Sénégal rue Valmy angle de Diouf rue angle Faidherbe lépp loo du euh, ci euh, matériel tuyauterie sanitaire wala plomberie CCPS lañ leen di conseil moo du comptoir commercial de plomberie du euh, Sénégal benen partenaire bu ñuy andal ci Green Card Sénégal mi nga xamantene ji yoon bu gaaw te wër ci képp ku bëgg États-Unis d'Amérique moy Green Card Sénégal wa Green Card Sénégal ñu yàgg ci am ci expérience di ci liggéey nak lo xamné ne ko rafetlu dem leen ci point d'inscription yi Green Card Sénégal ou fi ben ci place Obélisque wala ci foire de Dakar tenter sen chance gagner sen Green Card dem États-Unis d'Amérique bu dee bëgg dëkk da nga fa bëgg liggéey wala en toute légalité Green Card Sénégal loolu moo inscription yi nag li ci des bareetul bu leen en ligne qui 77 027 22 22 77 027 22 22 le 76 341 40 40 76 341 40 40 SIPEX société industrie papeterie express du Sénégal mi indi Kaye Espoir yi ñëpp taamu ci euh, njàng mi ouverture euh, des classes bi mu am ci taxawaay bu am solo ndax euh, cahier boo xamante ne ji dañu choisir papier bi gën qualité bi gën di ko ko liggéeyee mais également amul daray toxique amul daray toxique kon mooy cahier espoir librairie papeterie Mohamed bu ngeen dem ci Sénégal xam leen ne ci distributeur exclusive yi la bokk lu aju ci hello partenaire bi nekk fële ci immeuble le forum en face université Cheikh Anta Diop de Dakar bu ngeen fa demee da ngeen am lépp lu ngeen soxla ci cahier espoir waaye lépp lu ngeen soxla ci ay fournitures scolaires matériel bureautique ou informatique 77 633 21 24 77 571 07 02 librairie papeterie Mohamed yi euh, distributeur exclusif bouquet Espoir fromage l'écran des fromage boubès, fromage bou baax ci xale mais également vitamine euh, A ak que euh, de vitamine D mu am na calcium bu mat sëkk loolu mooy fromage l'écran boutique boo dugg laajteel fromage l'écran képp ko xam ne sa doom mi ngi jàng nga di ko préparer goûteem boole ci fromage l'écran ci kanam tuuti di nga xam li tax ndax dafay jàpp ci croissance su xale bi. Hmm. inspecteur jaajëf waay. léegi nag. dox na. ñu doxal. Eh, eh, joxe fromage ñu ñu ñu sàqame waale. yow mi Ah. damay bàyyi ba nga commencé campagne nga xam ne da nga soxla énergie soxla cawarte war a dugg ci ruq-ruqaat yi war a dugg ci dëkk bi war a dugg ci àll bi loo may neexal nii nii di ma neexal gis naa sànq ba tey yaa may neexal am li ma xam ngay bañ ma wax ko waaw ba tey je plaide coupable booy information bi ma yor de taille de bi ñu yor bi ñu yor comme man dama dama dama ci gën a ndaw dama ne koo àndal ndoy ban koo andal, nduy ban lañu andal, koo àndal njaay ban lañu àndal waaw ko yor yow koy wër yow kon jeex ak la naan fi mu ne xoolal dama laa ndengeñ na waaye sama kuddu jàmm la rek baax li ma li ma rek muñ ko muñ ko muñ ko rek suba lan yow xam nga ban day dem congé maa yow fii des waaw moom moo tax la muñ ko ba suba congé ko sax ouais lu xew marok. lañ commencé woon démb. lañ commencé woon démb xam nga Maroc booy xale yi jigéen dañ fiy jóge di dem Maroc. Mhm. naan dañuy jéem a jéggi dañ dem bitim réew. Mhm. ñii ngi fay am doom ñii di am doom. billaahi di ëmb di yóbbaale. billaahi ñii di ñibbiseek ak ay doom. ndax bëgg a tukki. di dem doom di yàq. déglu xale yi jigéen yi. lu leen dal ñoom ñoo ko teg seen bopp jigéen laa lu leen dal ñoom ñoo ko teg seen bopp. dañoo ñàkk jom dangay ñëw marok yor sa xaalis dem benn yoon dem ñaar yoon sa xaalis jeex. eggoo Espagne nga war a ñëwaat liggéey wala nga dellu fa nga jóge woon waaye déedéet bëgg lu yomb ñu nangoo liggéey dañoo bëgg lu yomb ñaata clandestin jigéen ñoo fi nekk fii ci Casablanca di liggéey ñi nekk Rabat ñi nekk Marrakech ñi nekk fu ne su heure dem jotee da ngay bàyyi sa liggéey nga dem soo duggee dugg nga soo duggulee nga ñëwaat liggéey sa liggéey waaye déedéet ñoom en tant que xale góor yi dañ leen fayal location mooy caamaan yi leen jox ñuy lekk di leen jox ñuy naan bu ko defé dañuy entamer ay relation ak ñooñu pour faciliter dem bi comprendre nga légui nak yow xalé bu goor bu lay jox ngay lek di jox ngay naan di jox dépense comme jabaram nga dekk ak mom si ben nek mu lay sang di solal koku dalay teddé té te bu la wé da ngay biir ku ci am sens ëmb yaq ko ku ci amul sens ëmb boot sa dom ku ci ñaat am sens aussi ëmb and ak sa dom ñaata xalé jigen sénégalais ñoo boza dugu europe hein ah? té yóbbaale ay doomu caamaan ñaata doomu caamaan ñoo ñibbi Sénégal ñaata doomu caamaan ñooy traîner fii si si biir si biir xale jigéen yi ñoom laay conseillé sama sœur yi ñoom laay conseillé nañu am fullaay liggéey dëkk bi metti na métti bu fii ku fi liggéey am loo suturloo. suñ clandestin ñaata at léegi 2019 ba léegi ñu ci destin yi dugguñu bàyyiwuñu te dañuy liggéey. dóor waar lañ gëm dañuy xëyee liggéey boo déggee yoon am na nga takk say dàll dem boo duggee dugg nga boo duggulee nga ñëwaat continuer sa liggéey loolu ci am fulla la bokk ci am jom la bokk mais boo ñàkkee fulla bëgg lu yomb bëgg facilité lii rek moo lay dal xale jigéen nag yu bari ñu ngi dund lii fii mais ñoom ñoo ko teg seen bopp yow ngay jox sa bopp lekk di jox sa bopp naan di toppatoo sa bopp ah di fay sa bopp location kenn ñamulaane ubbil sa tànk ma xool mais góor di jox ngay lekk di la jox ngay naan di la solal di la defal sax ay yóndee Sénégal seen waa famille fekk ne yaa ngi ci bonne condition ba nga xam ne boo amee problème danga leen koy ragal a wax fekk yow mosoo nekk ci bonne condition yaa ngi nekk ci lu neexul yàlla kon lu la ci fekk dangay assumer xale jigéen yi nañu am jom Maroc am na liggéey fii ku bañul am na liggéey fan la jigéen di juddoo Sénégal ba màgg ñëw Maroc yi naan la duma raxas ndab soo raxasul ndab nga dëkk góor mu lay jox ngay lekk ngay naan di sangu di solu ah di envoyé seen waa kër te takku la boo ci biiree mu sàndi la ut ku la gën a tooy nag nekk ak moom ndax xale yi dañoo jekk macha allah. yàq nañ deru jigéen ñëpp ma yàq nañ deru jigéen ñëpp Maroc mais pourquoi ñoom duñu liggéey ñoom ñooy kan nañu liggéey nañu liggéey ngir yàlla ñu dimbali ñu parce que ji jaratuñ fi dara ndax dañuy boole bisaab bu wow bisaab bu tooy bi yëpp jaxase parce que jigen bu bon bu defé dara dañ naan jigen ñepp yam xalé jigen lañ baye facilité fein ngir yalla jaxase marogo feeñ feeñ la rek baax xanaa kii moom jeex ci gis nga dong la ah. déglu am naa combat bu war dem dax la est ce que do ñew bokku ci mais bii yoon moom doo fay gratuite man dama la koy may gratuite mais da ngay ñëw nekk ak man ma ne ko nekk fan mu ne ma da ngay nekk ak man sama nekk waaw bi comme yow xam nga ne yow da man da ma neex tu es attirante ñu ñaa ba léegi bu weer bi dee dinaa la jox nga yoon yónnee sa yaay léegi ba keroog ñuy gis yoon bu leer fii nii caawmaan bu la wax dama la yóbbu Espagne ci gratuite c'est faux caawmaan da ngay dem ñu jabaroo rax nga mel ni jabar togg ko yegg raxas fuut bale yoon la ñuy jàppoog yow am na ñoo xam dañ leen di ëmbal ñu duggaale ak ëmb Espagne am na ñoo xam ne dañ leen di ëmbal defal leen appartement am na ñoo xam ne du ñu ëmb fii nii Maroc xale jigéen sénégalais du ñëpp nag ma wax du ñëpp dañoo bëgg lu yomb dañuy nekk Maroc fii du ñu xëy du ñu gont du ñu yet seen lépp ñu dépendre que ci góor. lépp ci góor ñi lañ koy dépendre te fii amul benn góor bu lay defar ci gratuite man bi ma woowee sama copine mu ne ko diw de caaw man bi woo na ma na ma ñëw ma gratuite tax la mu ne ma yow de yaa ñàkk wërsëg bu doon man ma dem ma ne ko man bawal bawal laa am na yenn yoo xam ne rus naa ko wala jomb naa ko may dem di jaay sama ngor pour dugg Espagne kese ma ne ko ñibbi wat Sénégal moomu ko gënal te man sax waxu Bouza maa ngi sëkk ndax sama yaay woo ma. na ma diw bis boo jaaree ci ndox mi dugg Espagne nga diw ak nga dund nga dugg ak nga ñàkk dugg du ma la ko bàyyi àdduna ak àllaaxira man léegi teg naa waxum dem ci suuf waaye sénégalais nañu waxante dëgg fii Maroc ñaare fi nekk suwat da ngay liggéey suwaat nga jaay yàpp te liggéey yi fi nekk yombut surtout ma Casa fii yombut restaurant ngay am soit centre d'appel soit kër naar kër naar nag moom folem mu si gën a nekk des fois nga taseeg ay naar yu baax des fois nga taseeg ay naar yoo xam ne mbaam lañ lay jàppe boo nangu ci liggéey gi moo sax bopp ci xale góor yi nga mujjee ñu lay paasante def la balu ping pong sénégalais si nekk Maroc xaaj bi nangu ñu liggéey gëmuñu seen bopp taxawaalu ne ci góor ñi wut sa fukki nekk ay caga privé te naan du ma caga dañoo foog ne kiy jaay sa bopp taxaw ci mbedd mi rek mooy jaay boppam waaye wut sa pukuus bu sàmba ñëwee dugg jox la cinq cent di dugg dugg jox la deux cent keneen dugg jox la cent léegi yow loolu loo doon nan wax li fi nekk sénégalais nekk man lu ñu nekkee moo ñaaw du ñëpp nag du ñëpp man loolu laa amoon lu may wax nga nekk Sénégal nga nekk beneen dëkk képp ku la woo dama la yóbbu Maroc ma wax ko mu leer képp ku la woo dama lay yóbbu ma Maroc nga jaar ci gaal yi wala bato yu dugg Espagne c'est fou amul gaal amul bato ay sojaat ñoo fi am te caaw maa ni boo yori sa xaalis bëgg dugg di nga dugg waaye boo yor xaalis ba pare bëgg dugg Espagne dinañ jaar ci sa kaw ba nga sonn ñu soog laa dugal te gisuma dara lu ko fi jaar. faay mii nga war a yebal Maroc mu dem. nii de ko caamaan ni doxalee boo paree kay jigéen ñi man pare naa. parce que moo war a dem chaque jour xam nga lu ma gën a wax hmm. Hmm. góor ñi nga daan dégg ñuy euh, wax. di hmm. dénoncer situation bu femme. mais tey jigéen ñi ci boppam. ñoo génn wax. parce que jigéen ñi ñoo gën a sonn. cest à lii ku mu yeewul. te xam nga baan man xëy na sax yàlla moo ma euh, nattoo may réceptacle de de secret. de confidence. alhamdulilah. mais nit nekk na Maroc wala ay nit nekk nañu Maroc. Mhm. yii nii. Mhm. ñu ko fay dund baa ñu bëgg ñu dund ko ñuy mhm. bañ. coono ba ñuy wax mais xam nga du lépp lañ mën a wax nag. su ki nga xamante ne ji bi muy wax ak yow. waxu ñaar la ko def. gis nga njaay bu dee góor. nga yaa ne parce que dañ lay teg di lekk sa xaalis. mais jigéen. dañ lay sàkku. ëmbal la teg la wuti keneen. te xam nga prétexte bi lan la. bul góor ñi na foofu du lool de bari na fay góor jigéen ñi sénégalais. ah, ah du jeex. Ah, baax na mais prétexte bi xam nga lan la. mooy mooy démb xam nga démb ñëwoo woon. Ah. xale bu jigéen bi nga xam ne dañ ko ëmbal fi daal waaw waaw waaw. dañ ko ëmbal avorté loo ko. Hmm. waa ji nga xamante ne moom moo ko def. loolu loolu mooy Birama Sagna dëkk Kolda. daggal na la yu bi ñu ko contacté pour jël version am ay saaga lañ ci tegal nee na avortement am na senegal am na fépp bu ko kenn sonal. démb koy lim may dédicace. waaye te nee na man sax man nee na man sax naa préparé ndax daf may jël si. Ah. foo jël ah. dañ may jël si xam naa ne moom daal kilifa la. <laughs> mais Ndiaye lu garaaw xew. lu garaaw garaaw euh, ci ci booru banlieue bi nii. Tëngéej xale ndaw maire bi hmm. day jël benn borom kalandoo. kolom kalandoo bi di ko doxal ay kursam quoi fu muy dem woom la moom lay woo. Hmm. ba mu ni booy bu borom kalandoo mu ñëw dëkk ca kër ga. mu ñëw dëkk ca kër ga. Hmm. di fanaan te néeg buñ ko joxoon hmm. jékki-jékki muy fanaan te néegu maire ba hmm? te maire bi daa am ay doom yu mag yi nekk ay Allemagne ak doom juy sëy hmm. ak doom du góor di ne ci biir kër gi sëti biñ ñëwee nag vacances jógee internat ah borom kalandoo boobu ñu hébergé ci wax ñii di waaj a wax que ni da doon làmbatu xale yooyu di jógee ñëw vacances waaw jàpp nañ ni tamit doom yi nee na ay doomu maire bi ñooy wax nekkaale maire bi la. borom kalandoo bi 88 la judd. 88 waaw maire bi. 70 70 70 comme 71. maire bi daal kalandoo la ko la ko doon doy waaye kalandoo ga daal ca biir kër ga lu mujjee film mi nii waa ji defe naa mi ngi tribunal est-ce que tey lañ koy defeere waaw jàpp jàpp nañ ko tey lañ ko doon defeere luñ ko jàppee ñim nekkaale ak maire wala attouchement xale yi kii xale kii jur xale yi te nee na Allemagne mooy wax su paree su fi xajee tàntey xale yi nga xam ne moom moo yor xale yi jamono jii moom it nga xam ne moo doon topp affaire yi tamit dina wax. Hmm? déglul li laa nekk dama am foofu ay doom ñaari doom yu jigéen dama divorcé ak seen papa sama doom nekk ak samay raq ak sama yaay léegi sama yaay dëkk moom kase bu dëkkee moom kase xale yi nekk ak moom ma xam ne maire bi mooy loolu daal moom amul jotu kenn talul kenn ma jël samay doom yóbbu leen internat. benn xale bu góor sama yaay jël ko héberger ko coxeur la dawalkatu kalaandoo. mu ngi dëkk mbaaw sama yaay jël ko héberger ko ci kër gi xale yi dem vacances mu jàpp xale bi ñeenti yoon di ko di jàpp ay weenam di ko bës di jàpp xale bi di jël loxoom di ko dugal ci yaa ngi dégg jàpp daal xale bi daal di ko menacer soo ko waxee dinaa la rey lu ne daal lu ne daal mu di ko def sama yaay nag instant yi nag ànd naag famille ba ànd ak xale bu góor ba jàpp xale yi xale bi 14 ans la am kenn ki 9 ans ak sama raq sama rakk moom moo fa nekk ma bokk ndey ak baay moom mooy dox moom moo def plainte bi moom moo def lépp mais comme xam na ne instant bi man nekkuma fa sama benn rakk bi nekku fa keneen ki xeex naag waa ji xeex ak moom ba kooku génn na kër gi mook jabaram waa ji daal nekk ci kër gi di dundi di def di menacer naan dafa yor ay groupe bu bandi jàpp nit ñi di leen wax lu leen neex. léegi daal ñun daal lu ñu jaaxal ñun du ñoo jommi parce que mënuñu concevoir man sama yaay bu ma sukk jur ay sëtam ay sëtam ak ay doomam benn góor benn vaurien 88 yow nga judd 71 kooku judd 88 nekk sa kër di def lu ko neex bu guddee mu tëral ko ak xale yi moom bu kee moom bu nelawee xale bu góor bi ëlbati xale bi yaa ngi dégg jël loxoom di ko dugg naan ko ay dama laa nag heureusement ba yàqul xale bi yaa ngi dégg jàpp xale bi ji jël bés ay weenam yaa ngi dégg xale bi ne def na ko xale bi dafa ragaloon na wax mais bañ ko ba ma ko laajee nangul wax ak kenn man la waxal ñu yóbbu ko police ñu dem police def plainte bañ demee def bañ demee bañ demee def plainte policiers yi jox leen benn kër ñu dem si gynécologue bañ demee si gynécologue bi gynécologue mu ne kii def na ko ñeenti yoon mu ne waaye xale bi dese na ndaw am na ndawam waaye xale bi ba jeudi bële paase waa ji def na ko ko ñu laaj xale bi mu ne waaw dëgg la def na ko ko. waa ji daal fu ne nii ay mbokkam jug nañ sama yaay ànd na ak ay mbokkam yaa ngi dégg nee na dañ ko koy bëgg a génne sànq lañ tàppe dossier ñoom ñu signé ñu ne dañ koy defeere sama yaay ànd na ñooñu ñun xamuñu lii tayeef la xamuñu lii lu mu doon wax dëgg fa yàlla xamuñu luñ doon ñun daal jommi nañ daal waaru nañ daal jommi nañ fi jommi yem waaru nañ fi waaru yem. moom mooy joxe mooy joxe caution waaye lépp sama xaalis la maa ko jox caution parce que sama rakk fa lañ nekk maa ko envoyé caution. maa ko envoyé maa ko envoyé xaar chaque mois ma envoyé ko mu mottali ak li yi di fay mu fay këram. xale yooyu ñu menacé leen maire bi menacé leen baax na rek doy na yoo nekk ñu sax sama rakk bi sama rakk bi lañ ne mais instant nii comme dañuy on sait jamais parce que mën nañ jël xale yi kidnappé leen mën nañ jël xale yi rey leen mën nañ jël xale yi dóor leen parce que on sait jamais Sénégal dafa garaaw. Euh, ñu ko waxee sax maire bi moom chaque année moom mu mu am problème góor doomam bu ñu waxee mu saaga ñu mettre ñu suñuy place ne nañ ko bàyyi mu dund dundam kenn du ko teree dund dundam mais yaay yaay la rek tey jii nii sa yaay bu taxee ne la bàyyi ma mu dund sama dund seen yoon new mais da ngay toog di ko seetaan parce que soo si waxee ñu ne ñu ne sa yaay la bu leen ko wax dara bàyyi leen ko may bàyyi sama yaay di xoolee bañ capp cappee xale bi may toog di xoolee non non loolu duma ko seetaan. loolu di ma ko seetaan moom nag viewam la comme day wax na ma ne moom viewam la am na droit héberger sax cinq góor ci këram mu xam loolu yoonam la. sama yaay moom soixante dix la xale bu góor bi quatre vingt huit yaa ngi dégg ñun suñu yoon newu ci viewam moom na def lu ko neex am na droit héberger ku ko neex këram am na droit def lu ko neex loolu viewam la moom la concerné. mais dama ne viwu xale yi mu jël 14 ans sacrifié ko loolu moo ñu métti comprendre nga loolu moo ñu ba pare sa propre sët nga héberger góor sa kër mu def ko lii yaa ngi dégg la moindre des choses nga taxawu xale bi taxawu yaayam parce que yaayam bañalu la dara yaa ngi dégg jël ay doomam teg ko sa loxo la moindre des choses mooy lan nga taxawu xale yooyu ba nga xamante ne coow li xam nga dinañ ko régler waa ji yoon def liggéey waaye defu ko dafa dem ànd ak famille waa ji yaa ngi dégg bedd ñu bedd beddi samay doom beddi ay sëtam beddi ay doomam ànd ak famille waa ji ne dañuy xeex xale yi lu ñu wax du dëgg. yéeme na de. li ko yéeme wu kii de kii doon wax ni. Euh, baas moom moom moo jur xale yi. moo jur xale seen yaay moom doomi meer bi la. doomi meer bi la. Hmm. beneen doomi meer bi moom moo nekk noonu moom nga gis noonu ci suuf moom moo bett yaayam ak chauffeur bi ci biir néeg bi. looloo ko gën a confirmé frère bi ak frère bi moo gën a confirmé ni euh, kal bu chauffeur clando bi moog yaay ji am nekkaaleem la ci biir kër gi mais ci ni mu ko waxee kii soixante dix kees quatre vingt huit. Mmh. am de différence. voilà su fi su fi xajoon ñu jox la si si. malheureusement Ndiaye waaw beneen beneen problème mooy. waaw mmh. mu ko dégg ci biir yi waxam mu ne. yaayam viam la lu ko neex na def. yaayam moo ko wax loolu. moo leen ni sama vie. mais moom sax nee na ko ñoom seen magum jëmm la ñun su ñoo nekkul ci moom. waaw mmh. magum jëmm la lu ko neex na def. waaw déedéet am na foo xam ne boo fa tolloo. waaw mënatoo def la neex. nekkatoo say doom ñooy say seef. Ah, boo juree ay borom yi mbañ. waaw am na xam ne mënatoo ko. est-ce que xam nga seen tàkk bu góor bi daa gàddaay. ndax jëf ji parce que chauffeuru clando bi du ko dóor dóor yu métti yëgale loolu. <laughs> yaay <laughs> yow. Euh, nekkaale bi ci boppam. faru yaay. moo dóor ses frères frères bi. mais buñ coupé micro yi dinaa lax mel. mais mais mais mbër mu nekk fii mbër mu nekk Sénégal lool waaw. mais momit lool rek moy dundam de. mais lool bari na dëkk bi Ndiaye ma ma ko xam hein? Ndiaye. ma ma ma Mati Mati. Ah, Mati Mati Tunkara. Mati Tunkara ñu wax Yaay Tunkara. mu ngi am 14 ans teint clair. dafa réer depuis le 24 octobre 2021. mi ngi dëkk euh, Liberté 6 côté terminus 9 bi euh dara jotu ko nag. xel mo xel mi machallah dara jotu ko mi dina wax français wolof ak bambara. ku ko gis na contacter mohammed ci 78 420. Mm-hmm. dañuy woo Mouhamed di ko dóor di ko di ko nax koo gis na ko indi fi ndax am na nijaayam bu nekk fii ci suuf waaw la wala mu wooñ 77 150 17 17 nañ mu ko maire bi jëkkër maire bi ci boppam ñu ngi koy wax mun na ñëw pour pour ñu déglu version parce déedéet maire bi su ma su ma moom ba kay posé koy question Ndiaye hmm. dina wax lan moo tax mu jël ko sër bu dugal ko ci biir kër gi te ak man kay mën naa wax tontu bi léegi nag ñu jox ko néeg man kay mën naa say doom di ñëw fekk ngay dem mën naa la wax tontu bi yow ab mën naa wax tontu bi su la waaj laa ngay tontu xam dugal question Ndiaye waaw mu dugal question laa ngay tontu <laughs>